ma di xamal ne rek li li des li li ñu waral ñu taw fii tey mooy ci biir liggéey bi xam naa ne gouverneur de la région de Diourbel dana ci ñëw mooy dafa am liggéey boo xam ne Sénégal dañ koo séddale juróom ay pàcc pàcc pàcc muy juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom ñaar ñu teg ay charte ak i loi ak i décret ci réew mi wax ne commune bu dee commune nii lay doxee ñi nekk ci commune ba nii lañ war a doxee tënk ko ci doxe ay procédure yoo xam ne administration ñoo koy seere di ñu contrôler bu président de la république monsieur Macky Sall mi nga xam ne yàlla dogal na ko am xam-xam la ci réew waaye ku bëgg liggéey la waaye ku bëgg réew mi la waaye ku xam ni développement la ci réew mi di ko am yéene ci Touba dëkk bii ñu nekk tey teg ay critères boole ci Touba commune yi nga xam ne war nañu ndax dañoo jël fukki commune ak juróom muy fukki région yi ak juróom dañoo jël fukki communes yi ak juróom jël ñeenti communes yi nga xam ne duñu ay région waaye commune yu mag lañ te Touba bokk ci Pikine bokk ci Tivaouane bokk ci Mbour bokk ci muy fukki commune ak juróom ñeent la jël boole leen ne leen danañ président de la république mi ne ku mën a lijjanti ak xaalis la te bëgg na Fongolo mel ne Dakar li waa Dakar di dund waa Fongolo mi di ko waaye li waa Dakar di dund waa Touba di ko dund waaye li waa Dakar di dund waa Matam di ko dund mu jël projet bu ñuy wax PACASEN muy appui projet buy dimbale communes yi ngir ñu mën a def infrastructure publique yi nga xam ne moom lañ war a am te seen doole matiwu ko ñu mën a bénéficier wu ci loolu boole ko ak li ñuy am ngir mën a def li nga xam ne moom la askan wi soxla loolu mooy PACASEN mu ànd nag ak ay mesures d'accompagnement ak i procédures yoo xam ne képp koo xam ne tegu nga ci yoon te niñ la waxe nga defe ko ni da nga ci bénéfice wu ba mën cee am loo dollee ci sa budget ba mën a réaliser ay infrastructure publique yoo xam ne saw askan danañu ci mën a dana leen mën a jàppale ci ci lu mel ne ay yoon lu mel ne ay hôpitaux lu mel ne ay dispensaires lu mel ni ay case de santé lu mel ni ay école waaye lu mel ni ay adduction d'eau lu mel ni ay forage loolu nag bu ko président de la république initié xalaat ko tëral ko def ko ba yàlla dogal Touba bokk ci ñi mu nattoon ne ñu ñu yàlla ñuy góorgóorlu di góorgóorlu ba liñ sart yiñ tegoon ne ku ko def danga ci bokk Touba bokk ci ah loolu lu am solo la bi ñu ci bokkee nag permettre nañu ñu am loo xam ne mën nañu cee def lu toll ni godoro bii nga xam ne mën na huit kilomètres deux cent sept kilomètres deux cent quatre vingt trois mètres la woon waaye ci càmbar bi ñu mujj def te bi ñu ko defee ñeenti commune jiitu ci Sénégal te ñeenti commune yooyu Touba bokk ci ndax mën naa ne ci ñi ci jiitu laa bokk maag sama conseil municipal ba tey ñu am huit kilomètres deux cent yoo xam ne war nañ ko mën a godorone ci biir dëkk bi loolu moo tax directeur technique bi entreprise bi wax na ko léegi ñu jël ay torsion yoo xam ne farata la lool ci dëkk bi farata yi nag bari na ci dëkk bi ñu ko Serigne Mourtala bu Serigne Cheikh Say waxe waaye kon ndar xëyul sotti te mi nit day tàmbali lu mu am defe ko li mën a am di def bu defee lii tey bu ëllëgee mu def lii bu yàggee lépp dana daj waaye daal ñi ngi am na tali bi tàmbali nañ ko dañoo bëgg a pose première pierre bi entreprise bi tàmbali entreprise bi nag commune bi tey néewul am na cinquante pour cent wala quatre vingt pour cent des des des budget commune di xaalis bi mobilisé nañ tey xaalis bi lépp mi ngi tegu ci trésor entreprise bi bu pare woon suba ñu fay ko avril deux mille vingt deux mois de avril deux la tali bi war a pare ñu war a taxawaat fii inauguré ko yal na yàlla dogal ñu fekk ñu fi ci jàmm ba ñu inauguré ko ak jàmm. te ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér ak njabootu Serigne Touba gépp ah man de ñun day administration gëm nañ ne Touba wuyu nañ seen tur ndax Serigne Touba jaamu yàlla ak liggéey la santaane li ñu fi dajale ne tey gouvernement senegaal ginnaaw bañ ko dogalee programme PACASEN daanaka su ma neexee ne mayew ko daf koy jaay mais leen la koy jaay mooy maire yi nangoo liggéey te condition yi mu teg mu remplir condition loolu gouvernement bi tegoon nekk ne alal jooju ko ko bëgg a defar da ngay respecter charte ya Touba ak maire Abdoulaye Kha respecté nañ ko cent pour cent loolu moo nañ may lii tey donc li fi am tey ab liggéey moo ko maye dañoo teg ay charte maanaam ndax respecte nga texte yi est-ce que respecté nga code des marchés est-ce que yaa ngi formé élu yi ay charte yu méttee métti waaye buñ ca teg rek maire Touba ñoom respecté charte yi ñu ne kon yelloo na alal jooju ñu teg ko ci maire Touba ndax ñi ñu jar jàppale leen loolu moo waral bés bii gonk yombul woon waaye ñii ngeen jiital sëñ Abdou Lahad Ka mii ak ñi mu àndal muy conseil municipal fi ngeen leen teg ñu ngi liggéey guddeeg bëccëg pour mu yokku te dina yokk ndax juróomi salle de euh, poste de santé war nañ nee na tabax moom wax na ko ba ci alia euh, dëkk yëpp mën naa leen lim ngeen xam ne lu ñu inventé amu ci alors. Euh, war nañoo tabax poste de santé Sam Serigne Abdou Latif Alieu Touba Belel ak Touba Ndiarème ci quartier yooyu vingt salles de classe ci dizaine d'établissements scolaires ndox waxi noppi dina ñëw ci treize village yu am ndoxu naan jënd ñaari camion manque te ndox maan yi gis ngeen ko di ñëw ak ñaari oto pick ak ñaari corbillard tak foofu laa ci yemandi la des moo ëpp li ma lim te loolu lépp ab liggéey moo koy maye. kon boo fi ngeen teg seen tànk yéen waa Touba fii la njiit yi ngeen am ay njiit yu am njiit lañ ñun nag gouvernement bi dañ leen accompagner ci li ngeen di liggéey lépp taxawul leen jàppale leen Touba ku ko bëgg a defar ku defar réew mi Sénégal yaakaar naa ne soo jëkkewul Touba a ah, doo ko mujjal ndaxte ab lim ci nit mate na ko koom-koom bi mate na ko waaye li fi seen Tuuba liggéey ba tax dëkk bi nekk dëkk jëmukaay yi nit ñi yaakaar ko ci diine yaakaar ko ci koom-koom yaakaar ko ci lu bëree bëri mu nekk dëkk bu am solo ci réew mi yaakaar na ne programme bu ñu yëkkati Touba a ah, bu ci jiituwul kenn du ko jiitu te maire wax na ko léegi Ila Touba bii indi na développement ak yaakaar bu rëy entreprise yu bari tey bëgg nañ ñëw installé wu ci région de Diourbel tey laa Touba yi mu indi loolu ndax dem beeg dikk bi dafa yomb pour nga dem Dakar une heure de temps une quinze nga dem Dakar pour nga jege fa ñëw yàggatul te loolu dem dikk bi ku ko réglé rek saafara nga saafara développement.